kon nak li Ousmane Sonko don wax deug la dañu jëlat suñu responsabilité renégocier waat les contrats ba mu nek des contrats gagnant gagnant des contrats équilibrés parce que aujourd'hui on ne peut pas dire ay France dégage ou autre parce que amul men rew ci aduna bi mm. fallu mu mom bopam mm. amut nous sommes des pays mm. interdépendants kon nañu renégocier renégocier waat mbir yi xoolaat lan mo ci suñu ay intérêt aussi nak lañ mëna amé avec les autres pays des contrats vraiment équilibrés des contrats gagnant-gagnant loolu muy que mi mais waratuñ bàyyi ñuy exploiter aujourd'hui suñu les ressources naturelles te suñu les du ci gis boppam te matière grise c'est dama ne la expertise bi war na mën a am nous war nañ expertise matière première ñu capter ko mais en ce sens là il nous faudra une politique d'industrialisation tabax ay industrie yu dëgër yu baax des industries lourdes des industries légères indi expertise bi teg suñu matière première doo mën fi des hmm. nga xam dinañ def la transformation parce que ñi fi jël sa matière première di ko yóbbu lu koy doyee hmm. mais dañ koy transformer waat en produit fini indilaat la ko di la ko jaayaat ci njëg boo xamante ni tey fii yii ngay yii yëpp hmm. lu ci bëree bëri jógewu fi yii nii yëpp kii kiiwu por kiiwu protège bi jógewu fi te boo gësoo ba gësu matière bi fii la jógee pour lu ci bëri fii la jógee matière bi surtout kédu kédu gu nii boo demee ci yenn zones yi man yor naa catalogue bi ressources yi naturelles yi Sénégal yëpp. Hmm. catalogue bi yor naa ko mais nga xool les ressources naturelles am na yoo xam bu ñu la ko waxee sax da nga naan danga naan est-ce que amoon na ci réew mi réew mi lépp a ngi fi ah réew mu yàlla baaxal expertise baa ngi fi nañu def politique d'industrialisation parce que loolu moo mën a indi euh, moo mën a. remplacer aujourd'hui l'importation bu ñu une politique d'industrialisation bu taxaw hmm. suñu taux d'importation. De taux d' importation dafay wàññeeku exporter wàññeeku ñuy euh, exportation bi oui euh, mom moy euh, li nga xamné que moo di yokku waaw ñuy importer lu bari waaw xam nga li lay wone nous sommes un pays euh, très pauvre moy li nga firndeel li ngay wax aujourd'hui suñu exportation mo ëpp doole suñu suñu suñu importation mo ëpp doole suñu exportation mm-hmm te donc bu fekkoon ni sax ñu ngi jéem dara def ay effort normalement tout d'exportation bi. moo war a hmm. ëpp doole taux d'importation bi. mais foo gis réew moo xamante ni la muy génne moo ëpp doole la muy la muy la muy la muy la muy la muy jën indi moo ëpp doole la muy mais réew moom réew moom réew mu ndóol la en tout cas aujourd'hui il nous faudra une politique d'industrialisation une politique de bonne gestion des ressources naturelles euh, ba nga xamante ni dinañ ci gis suñu bopp réew mi gis ci sa bopp.

waaye tam lepp li nga xamni itam dang koy daal di lekk euh, mu daal di bawoo ko si réew mi exactement mu nekk ay cadre yu nga xamni itam jomay euh, yekki nako Serigne alors cadre euh, yu nu mel nak aussi franchement. est-ce mhm. que tollagum nen si benn autosuffisance alimentaire daal di war a mën a suñu bopp parce que président Macky nous a vendu justement cela en 2017 waye ba tey ci froisse

kii bi euh, njëg yi yokk woon trop. Mm. xam nga boobu le président Macky Sall defoon na concertation pale boo woon les états généraux pour ñu wàññi waxtaan waxu prix bi ba ñu jëloon sax ay ndaw yóbbu leen ne leen dañu leen di envoyé ci yenn boutique yi pour bu ñu gisee ñiy jaay lu ñu war a jaay ñu dénoncé leen ba joxe ay numéro vert. Mm. ba teg ay affiche ci boutique yi boobu man édition spéciale la ma fekk comme tey Sen TV man lii mooy science fiction ndaje moom mu ñu def palais c'est une science xam nga science fiction mooy nga ni dinaa régler jafe-jafe askan bi fii ak 2000 nangam alors que jafe-jafe askan yi mi ngi nii taxaw sa kanam nga ni dinaa ko régler d'ici 2000 nangam alors que jafe-jafe yaa ngi nii xam nga loolu science fiction la. Hmm. mais le plus important mooy autosuffisance alimentaire du yomb parce que nous sommes un pays dépendant on est tellement dépendant parce que li ñuy lekk lu bëree bëree bëri faal dañ koy jéggaani lu ci bari xam nga bo autosuffisance alimentaire da ngay wax économie da ngay xawal laal économie da ngay xawal laal économie hmm. ñun ñetti secteur lañu am ñetti secteur primaire bi secondaire bi ak tertiaire pour expliquer l'autosuffisance ni autosuffisance alimentaire bi luy jafé lay doon parce que teguguñ ci yoon on a trois secteurs le primaire secondaire et le tertiaire tu as vu mais au Sénégal ban secteur la ñu favoriser. Hmm. aujourd'hui ban secteur la ñu favoriser même si demee ci budget bi état bi génne le secteur secondaire a été complètement marginalisé ci hmm. budget bi ñu génne woon. Hmm. ma ni alors que secteur secondaire pour la plupart fa la nekk on parle de l'industrialisation de l'agriculture ñu boycotté dugal fa lu sur ci budget bi. dem gëna a tay li ngay wax non muy secteur tertiaire bi. moo tax ni la tertiaire bi moo gën a dox Sénégal. Mm. tertiaire bi xam nga lu tax mu dox. Sénégalais yi dañoo bëgg lu yomb ñu baree bari. da ngay gis ku dem dugg ci secteur secondaire bi par exemple ci agriculture bi jël suuf sam jël jël suuf sam sa amoon yépp war a ko bay de jaay ko ñëw investir ci secteur tertiaire ci secteur tertiaire bi muy commerce bi. Mm. wala transport bi. lan moo gën a dox immobilier transport ay kii euh, immobilier yi ñoo gën a dox. Mm. ak commerce bi. ak transport bi parce que transport bi xam nga lu tax mu gënal leen créer ay industrie dem rejoindre le secteur secondaire xam nga lu tax mu gënal leen. Hmm. parce que boo créer industrie li muy demande ci ay emploi day bëri est-ce nga. Hmm. mais boo créer fee sa benn tata jëndee fee sa tata ñaari nit nga mën a jël chauffeur bi ak ki keneen ki nga ciy gagné chaque jour xaalis bi ba tal. apprenti bi apprenti bi mais fële électricité bi ñëw impôt bi ñëw nangam ak nangam yooyu la ñuy daw. chargé chargé motax légui nak léegi nag ñëpp dañoo daw investir ci immobilier bi ci transport bi ak ci commerce bi moy secteur yi gëna dox aujourd'hui Sénégal légui nak secteur bi ëpp solo fallu hmm. moom lañ marginaliser muy secondaire bi muy muy l'agriculture ak euh, l'autre là hmm. li ma wax léegi agriculture bi l'industrialisation hmm. ak pêche pêche bi napp gi te réew gis nga réew réew yu développé yëpp commençant par France fii ñëpp xolal ci agriculture la ñu jëfandiku ba développé wu. c'est important xam nga aux États-Unis tey ñu ngi développé seen trois secteurs yëpp développé nañ primaire bi développé nañ secondaire bi développé nañ tertiaire bi mais ci benn secteur la ñuy jëfandiku. Hmm. def fa investissement ba mu am doole yóbbu yeneen secteur. yi tey ñun ñii dañu war par exemple bu ñu miser woon ci euh, agriculture bi agriculture bi def ci investissement bu am solo ak ak ak ak euh, industrie bi. Hmm. Fallou est-ce que xam nga ni dootuñu soxla màcc suñu matière première dootul génn bu ñu dox parce que mbay mi dafay xam nga mbay day génne matière première matière première bu paree ñun duñ ko mën a exploiter parce que amuñu ay industrie yu ko exploiter loolu mooy waral les industries étrangères ñëw jël ko yóbbu ko tu as vu. Hmm. moo tax ma ni aujourd'hui autosuffisance alimentaire lu jafe lay doon parce que tegooguñ ci yoon bi xëy na peut-être avec ce régime bu bees bi mën nañu am espoir que ni li liy war ci mbay mi dinañ ko def ba ñu porsi propulser le développement de l' agriculture léegi le développement de l' agriculture en revanche moom mooy propulser les deux les mm. les autres mm. euh, les autres secteurs dina leen mm. may doole. mais daal ce qui est sûr et certain et le plus important mooy euh, ñu xam ni il y a beaucoup de choses qui nous manquent. et que régime bi dafa am défi boo xamante ni daf ko war a daf ko war a daf ko war a daf ko war a. relever daf ko war a relever. c' est le plus important man mo tax japp naa ni aujourd'hui bu fekkee dañu bëgg autosuffisance alimentaire nañu commencer d'abord investir ci agriculture ba ñu am une agriculture moderne bu nga xamante ni ndaw ñi dinañ ci gis seen bopp parce que agriculture moderne foo ko wootee nit ñi ñëw mais agriculture bi ndaw ñi bañ mooy agriculture bi nga xamante ni dépassé nañ euh, aujourd'hui léegi léegi léegi y a les tracteurs étant de. lépp ñëw na wéy tout est moderne mën ngay liggéey nii ci mbay mi te doo sonn gën a yomb xoolal sol yëre set di hmm. liggéey hmm. mën na ne mais mbay mi ñu néewal doole lu gàllankoor la autosuffisance alimentaire. raison pour laquelle on devient de plus en plus un pays dépendant par mm. rapport aux autres pays. Mm. et vraiment ça ne ça ne fait que de nous euh, de nous euh, mm. écraser de nous massacrer économiquement parlant là. war wuti euh, nga aujourd'hui ñëw

donc dina nga xam nekk les questions purement économiques euh ñu dal di ñëw sal politique exactement euh mais la ta lolu euh dafa souligner aussi leneen lu am solo moy ñi jël xaar si réew mi basiru néna na képp ku képp ku ko indi sa propre gré du la toppatee dara ta sax mu na la jox ap patch si.